asalaamaaleykum mbokku téléspectateur mbokku internet tey seen xarit seen doom moo ñëwaat ak yéen éleveur Bada Ndioul ci seen émission parole aux éleveurs dañoo fas yéene dem ci képp kuy yëngatu ci euh, wàllum mbay wala mbàllum càmm nga nekk fii nii ci ci zone bu Fouta ñu toog waxtaan ak yow weccoo xalaat te xam dañuy tax ba ñu gën a xam zone Fouta bi te xam ngeen ni produit yu bëri animal yi wala mu nekk agricole fii la jóge si zone Fouta mais nit ñi xamuñu ko bu baax nañ gën a wane loolu gën a yaatal ak éleveurs yi ñu nekkal fii nii. tey maa ngi leen di jox rendez-vous bépp samedi ak dimanche fii si seen sama chaîne YouTube ñu mën a waxtaan si lool noonu.